xibaar bu bees tàq Balla Gaye 2 doomu Double Less le lion de Guédiawaye tey ci alxemes bii lay takk jabar xanaa takkaat kay ndaxte Boury Bathily ginnaaw seen coow loolu lëmbee Sénégal mooy aawam ana kan la Balla di takk ci bés bi xale bu jigéen baa ngi wuyoo Léna Gueye moom nag du n'importe kii waaw ndaxte waa Sénégal ràññee nañ ko ci mbeteel série boobu xew ci jamono tey jàll ci RTS Léna Gueye nag ci tibb yu baax yi la bokk maanaam tàngal la métis bu weex fur teg ci bokk ci famille artist leena moomu goro dem si yàlla ndey xadiñaa la fecckat bu mag boobu magu ndey xadiñaa di maamam Balla Gaye bi mu demee kat appui yàgg na jamono ji leena la doon lew tool ba loolu waral mu accéléré verdict bi ne nangu na ne leena mooy reenu xolam wax mooy nan la koy buri di dundee moom mi ñu dóor keroog ba kanam bi tëndandiir xanaa ay gët rek a ko dese pour jooy. mana moom daa ba géej gi fer.